jërëjëf euh, président Meissa jërëjëf Babacar Noël Ndoye presse bi jërë ngeen jëf vraiment ci seen teewaay fii ñu ngi jéggalu nag ndax dañ xaw a tardé tuuti parce que moom liggéey bu ñu liggéey fële te am na ay kilifa yoo ñëw nañu vraiment ma bëggoon cee jéggalu te comme ni ngeen ko xamee démb ñu ngi fi trois heures du matin ci dîner bi dem aussi coordonné suñu coordination boo solo ndaje bi rek CNG dafa sàkk woon pour que mu ñëw seen kanam ñu tuuti.

Ndar nag génne fi il y a 15 ans ñu ngi woon organisé un coup vraiment mu nekkoon xew bu am solo waaye ci gàttal rek euh, xam ngeen ne semaine passée y a toujours une semaine président de la na ak lu làmb ñun nag ba ñu waxee ne dañuy recevoir ñun ñu jàpp ne ñun dañoo war a ànd ak ñi ñu ko bokkal ñi ñu ko bokkal mooy ñan wala ñi nga xam ne CNG moo leen meññ entre guillemets muy CRG yi muy euh, euh, managers yi. muy euh, promoteurs yi mooy euh, entraîneurs yi mooy école de lutte yi mooy euh, amateurs yi toujours boobu ay avec la presse les sages anciennes gloires yi woykat yi tëggkat yi man foog naa ne loolu mooy pratiquement njabooti làmb bi ñu demoon foofu presse bi ñëw fa ak doole également ñu ñëw fa waxtaan ak yéen li ko sookee nag du dara mooy que ne Moustapha Guèye ñu koy gërëmaat di ko santaat parce que moom moo demoon màkk daje fa ak ki ñuy wax honorable député Farba Ngom ñu waxtaanee loolu mu commencé ñu ngi fii vraiment ñu yëgale ko président bi leen recevoir aussi wax na leen ne bon bëggoon naa dajeeg effectivement waa làmb ji Moustapha ne ko man nag du président bi mu ne ko non comme yaa fi teew dañu bëgg nga jottali ko ci lañ commencé suñu liggéey aussi ne Farba na ñëw CNG mu wax ñu déglu ñu déglu niñ li ñu bëgg ci ñun mu ñëw ñu réunion ak moom ba déggoo mu dellu rend compte ca biir réunion ba foofu noonu moom Farba Ngom may fa million. mu ne pour paas ña doon def réunion bi ci biir réunion bi déggante na ak madame la première dame mu ne may naa leen cinq millions pour paas yi ñëw foofu sax am lu waxante ak président de la waaye xam nga loolu moom du yegg suñu nopp loolu ñoom ñoo koy gérer au niveau cinq millions boobu nag mooy li ñu leen tasaare waa axul làmb yëpp jot ci ñoo fa par wéef je crois am na tuuti des loo xam ne dañ ko war a njàmmet na ko exécuter alors jot ngeen fiche bi aussi ni ñu ko defee ci suuf nag njumte machine am na fa parce que am na fu def 60 presque 60 la def mais 60 mille mooy maanaam ña ñëwoon ca délégation bi ñoom yooyu am na beneen bu ñu def 40 c' est pas 40 mais c' est 40 mille boo calculer lépp day doon 5 millions gis nga su ñu def CNG zéro waaw CNG dafa ne comme njabootam la booy séddale li ngay sédd sa njaboot mais du séddu yow jox leen ko. donc loolu la ko CNG gisee moo fay frais yi également frais yi yooyu yëpp ko bu jox leen ko. loolu si tamit ñëpp ñoo xam ne jotuñu mën nañoo laaj ne jotuñu ñu ñuy wax ne kii lañ ko jox moo jëloon seen xaalis mu leer nañ alors là vraiment kooku si duñ ci lésine bon leneen la mooy que ne drapeau bi bañ jógee Diourbel dañoo taxawoon rek ne ñun déwén kan la ma ko ne moom candidat la Sédhiou ne candidat la euh, Kolda ne candidat la am na autorité bu jàndaloon sax mu ma doon wax ne non balaa ngay jox koo gisagul. joxal ñi teew parce que boobu maire Kolda mu ngi taxaw su ma di teg pression bi ni pour jël mooy notre frère ami Mame Boye Diao vraiment moom pare na pour ñu foofu. alors fekk suñu kàddu aussi jiitu ñu dañu euh, am na it Sédhiou ku ñu waxoon ci responsable yi ne ñoom pare nañu parce que euh, le champion d'Afrique euh, monsieur mu ne Sadio Mané pare na pour dugal ci loxoom. lolu déggoon nañ ko du courrier nag mais responsable yi Sédhiou ñooñu ñooñu ko wax donc mais ñun euh, comme ne woon nañ Ndar lañ jëm ñu ñëw fii l'année prochaine peut-être on va voir on va faire un autre on va faire un autre casting c'est pour que Dramé Soldats dafa beneen dimension léegi te sàkkuwoon nañ ko moo tax gis ngeen ne on a un partenaire ku ñu gunge ci mbir mi mu nekk Eric Favre ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm également Aline Gueye mi nga xam ne moom moo nekk son représentant au niveau local loolu su yombee c'est grâce à lui ndaxte ba ma ko ne Eric bu naa mu accompagne ci drapeau yi mu ne président amul benn problème faites la lettre man je vais l'acheminer et quand je l'ai fait il l'a acheminé Eric a quitté la France pour venir ñëw fii au Sénégal ba mu ñëw it recevoir nag sama bureau ñu waxtaan ba ñu waxtaanee ñu ne lii ak lii mooy plan de travail mu ne y a pas ma ne ko mais loolu it dañ koy tënk ci këyit il faut un protocole on a fait le protocole ñu signé ko mu xool ko. def ci amendement ñu ñuy amendé ko après voilà moo indi lii tey ba ñu defee problème le lendemain il a envoyé une mission à à à Saint-Louis ñu ñëw fii pour xool terrain bi kon naka la ñuy mën a installé donc ñu ngi koy gërëm di ko béy gis ngeen n'est-ce pas la fa nekk vraiment c'est extraordinaire alors euh, état lii drapeau chef de l'état du drapo Abou Ndou du drapeau Maïssa Ndiaye. rab setaan nit ñi dañ koy jëmmal vraiment gis nañu ay société ay ay militants taxaw nañ ci dëgg pour mu am réussite moo tax am na ñoo xam ne def nañ seen koppar ndax ne amoon nañ budget quatre-vingt-neuf millions six cent vingt mille alors euh, mën nañ ci lim nag dem bi Bitèye mooy DG Sénélec kooku nag vraiment naa ko beral nuyoo parce que yàgg nañoo accompagner ba ñu nomee le mois suivant ba ñu ne dañuy tëgg benn làmb moom moo ñu jox 4 millions noonu am leen financé ko. Il a aussi, le président, voilà, quels sont des problèmes. Maintenant, écoute, accompagne-moi là Vous voulez combien Maintenant, on a je donne 10 millions. Rennes, vous aurez 20 millions. Je crois, que pour vous, il nous suit et nous accompagne. Mm-hmm. Alors, CDC, euh, la CDC, la caisse de dépôt et consignation, 10 millions. Euh, ministère, 20 millions. Vous savez,

ni mel ci xolu Sénégal yi amul benn sport bu ni toll ci seen xol moo tax ba doon plaidé na ñun dañuy war di beral loxo ndax ci làmb ngay gis mbër ma di ngemb junne nit toog buntu këram pare ko gunge amul benn athlète boo xam da ngay préparé wu nga tey sa dàll wala nga sol sa kimono wala sol leneen moom ñu la ñu la gunge pour nga dem amul ci làmb dong la kon nag. dafa nekk ci xoli Sénégal moo tax ñu war ko sàmm gën a xëcc nit ñi ñu ñëw li ñu def fële ci stade Mawade Wade c'est pour que ñu mun a jaay la destination Sénégal gën a xëcc sponsor yi ñu ñëw jàppale promoteur yi ba nu dajeeg président de la République également am na ay mesures yu fa jël des mesures fortes am na ci yéen ñu ci bind ne eh, le président la gàtt la lutte maanaam daf ñu daf ñu reewal ca dispo euh, décision yi fa jël. on sera ensemble et d'ailleurs dans la semaine là semaine au CNG pour lundi c'est tout mais mardi Inch'Allah on va on va convoquer les acteurs pour l'assemblée générale constitutive parce que nous sommes joints. juin nañ gaaw les jeunes nous avons vu qui ci la yéexee de soto Si Le projet bi capoté ñu ah, c'est le CNG qui n'a pas fait son travail on ne veut pas ça on va anticiper d'avoir il nous faut en fait normalement euh, un comité disons directeur de 21 membres tout le monde ne peut pas être là-bas mais on va faire un bon casting toutes les structures les composantes et afférentes dinañ en place alors là vraiment c'est ça beneen moi je que sous budget 89 millions 620 000 récompensé 28 millions 800 vraiment alors 28 800 22 millions moi, le grand le drapeau général premier 10 millions la deuxième 5 millions troisième 2 euh, millions ainsi de suite ainsi de suite il y a également les dépenses les enfin les trophées en individuel 500 000, 000, 250 150 000, 500 000 extra extra extra Nous le côté grévé, c'est vraiment nous yegg 22 euh, millions Si vous que nous open open ça te prend 5 millions ça fait déjà 27 millions et le reste c'est évidemment la petite catégorie bi nga l'innovation innovation parce que de nous li nga euh, pour nous Nous avons commencé pour nga vous puissiez am alors moi vous que Joseph Jeux olympiques les de la jeunesse en 2026 Sénégal dafa war a préparer dafa war a waaj te ay la yéwén ñu wax ko ñu bañ kaa wax làmb ji dañoo compter ci moom pour moom ay médailles te nekkul ne suñu VIP ñoo koy bëre ji ñan ñoo koy bëre mooy xale yu ndaw tout tànk yi 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans ba 15 ans comme ñoo koy bëri moo tax ñu dugal leen ren ci drapeau chef bi Sénégal yi gis leen xam ne fu xale nekk te vraiment mën a bëree nekk ah, ah, comment ça s'appelle champion bu ndaw buy yëg. ñu mun ko accompagner même bu ñu naree def sax di jàng di bëri daan ko def def un dispositif boo xam ne dañu accompagner nii loolu vraiment bëggoon naa ñu partager loole alors il aussi euh, li ma doon wax léegi balaa may juum euh, comment s'appelle encore euh, kii bi la petite catégorie ni ñu ñëwee laa la bëggoon wax rek kaw Kaolack ñëw na Diourbel ñëw Saint-Louis ñëw Kolda ñëw Dakar ñëw Tamba ñëw Ziguinchor Thiès et Fatick. ça fait 8 régions. Alors, donc, les 26 26, les femmes 22, 48 athlètes. Donc, c'est la, la précision qu'il fallait faire en Wolof. Alors, les aussi CNG, vous voyez, nous avons des gens des agents, des agents, des managers, etc. Les CNG ont fait disposition pour nous grâcer, nous mettre les compteurs à zéro. Comme déjà, monsieur le président de la république son Macky Sall recevoir nous, waxtaan ak ñun wax ñu neex neex ci walu habitat ci walu couverture maladie universelle ci walu subvention 500 millions ak lan les emplois ak emploi 330 emplois mutuelle de santé moy CMU bi rek hein alors yoyu couverture d'habitat yooyu yëpp loo xam dañ ko wara capter valoriser aussi hein, mais il faut qu'on qu'on s'organise d'abord fu nous organiser wu moo tax ma ne incha semaine prochaine daañu autre réunion CNG composante yi ñëw comme ni ñu demee chaque composant indi ay délégué ñëw ñu une assemblée constitutive pour que këyit mun kaa déposer parce que la ñuy wax foofu yëpp nekkul ne manque de mooy ñoo taxaw ci laa bokk de jox leen 10 millions wala jox 5 millions déedéet ay këyit yi génneewul loolu de séddoo ba d'obéir moi je crois que ña fa demoon. Nous avons 150 logements hein? c'est ça nous avons voilà presby 20 emplois pardon il y 150 emplois nous avons presque 20 20 emplois managerie 20 euh, comment les sages 20 ancien couloir 20 cng ACRG, 20 etc etc nous aussi il faut organiser où ben vous une liste nous avons cette répartition parce que un jour mon que c'est bon Eh, dañ bëgg a def distribution bi ana gars yi seen liste ñan la ñan la ñan la foofu bon loolu vraiment ku nekk daal bëgg nañ sa structure organisée wu teel a remonter l' information nécessaire. ba nga xam ne bu ñu la joxee sa vin nga xam noo. waaw parce que bëgguñu rek ñu ne cumbux seen vin ngi nii fekk opéré la waxtaan wu ko te bëgguñu mu am coow te suñ ko defulee ci coow lañ jëm am na économie mun na am coow te coow waru fa am coow waru fa am ma fàttali aussi que ne ba. fa Farba Farba Ngom ñëwoon pour di soog waa CNG ba mu ñëwee may na ña fa newoon ci réunion ba un million pour seen paas ci biir réunion aussi madame la première dame ci mbaaxam nee na danaa may cinq millions ñi war a ñëw pour paas ñu présidence cinq millions ba jot nañ ko séddal nañ ko gis ngeen ko am na fu ñu bind quarante mais du quarante quarante mille la am na fu ñu bind soixante mais soixante mille ngeen xam loolu. fañ bindu zéro nag loolu zéro CNG la maanaam CNG dafa séddali njaboot ji li nga xam mooy 5 millions jërë ngeen jëf maintenant on va aux interventions